Wah, ah, jalannya iya. Oh iya. ndox bi balé ci fossi jaxaso ndoxu taw bi di rogalat ci tali bu bari kamb li lañu néméku fi ci cité kër gorgui bi nawet bi tambalé ba légui ñu jëkkee ci gox bi nga xamante ni moom la ñu mujjee sànc fii ci ndakaaru di ko ñaawlu. lii du du tey dafa yàgg ça fait presque plus de cinq ans c'est comme ça à chaque fois bu ñu tolloo ci période bi ci période hivernale bi ni lay demee su tawee ndox bi dafay mélangé wu ak ndoxu égou yu jóge fële di ñëw gis nga waxuma la oto yi sax même les passant ñi nga xam ne dañuy dox ak tànk sax dañu am ay difficultés pour jàll du ñu am accès ak fii cité bi nu mu mel ministère yi fi nekk. structure publique et privée yi fi nek agence yi société yi war loolu mën a ni te chaque jour les autorités passent par ici ay eh, des autorités publiques ay kilifa dañ fi jaar xam nga fi li fi yàqu ci auto bul comprendre suñu auto yëpp paan na daal suñu auto yëpp yàqu na waaw auto bu fi jaar dal yàqu auto bu fi jaar yàqu tali bi metti na tar na ñu koy dund dund bu metti nak waaw mais dañuy muñ ni rek di bës rek suñu xol

ñu wax ñi nga xamante ne ñoo moom immeuble yi ñu jéem a contribuer améliorer daal vraiment tali bi ndax état bi moom doy na waax trop fi nekk boo fi duggee sa oto rek da gis des fois ay affaires yuy décroché di yàqu ci oto bi sa pneu di yàqu donc vraiment loolu bu ñu sañoon état bi dimbali ñu ci. li fi nekk moo solo ak ñi fiy xëy ak ñi fiy jaar parce que fii am na ñu fi nekk en ce moment di fi liggéey nekk fi. amna na ñoo xamee tamit dañ fiy jaar parce que souvent ñu bari dañ fiy jaar di génn di jël VDN bi. tali bi aussi vraiment tali yi moi fu dekk par exemple euh, sama quartier tali bobu ça date de 66 tali bobu mo mais mais tay tali boobu euh, réfectionné wu ko euh, amul luñ ci défarat mais ba tey tali bobu nga fa té tali bi soo ko seetloo cité kër googu dafa 10 ans mais déjà tali bi ñu commencé yàqu. cité kër góor gi di dalal ginnaw jam ñaajoo li ëpp ci ay këru kay mo xam ministère agence wala yu ni mel tabax ya yàññ lool waaye tali dara baxu ca. la plupart des ministères léegi fii la ñu aussi ñenn ñi ngi kër euh, ñi ngi jam ñaaju mais lii euh, vraiment c'est déplorable hein lii moom vraiment xaaruñu ko ñu parce que c' une euh, cité nouvelle cité bu bees la té infrastructure yu bari comme ay ministères comme ak yenen structure yo xamné ne fii lañ nekk li suñ ko gissé vraiment dañ naan lu ñi ñaawlu la daal. problème talibi la ak évacuation dem. non je ne pense pas bu des tam parce que les mako ko fatarñee eh, kii bële na man m'a fay ñu ñu ont souci. mais ndox bi su ñëwé su duggé du dem donc kon ndox bi problème la am bu mu démé té à chaque fois day day toj bu tojé mu muy ñëw moy nekk fi demandé euh, assainissement ñëwul hein? après euh, curé des defal ko comme ñu ko doon defé euh mu nekk ay ki yo xamné pré hivernal lay doon quoi en ah, pré hivernal ñu curer égout yi seet xamné dafa boucher ñu déboucher ko et que ndox mi su ñëwee parce que li si nekkee égout la jógee su ndoxi taw bi ñëwee day gëna day gëna metti métti day gën a ah. métti ligéyu ñu dara ligéyu ah. liggéeyuñu waaw liggéeyuñu ONAS ligéyu ñu mako wax ligéyu non ligéyu ñu parce que dama gis né way xam nga euh, hivernal ci waaj a jub comme ñom nuñ doon def au début bu bu bu njëkk ba bu yàgg ba nous avons sur dañ doon def euh, éléments sur le terrain di def euh, entretien du curé regard qui pour préparer l'hivernal. mais c'est ce que nous avons ko gis si nous avons fi dëkkee am na donc ne serait-ce que pour ça nous avons fait des efforts contribuer aussi euh, ci vraiment amélioration qui la xar kanamu mbeddu cité keur góor gi yi wuteeg ak tabakh yi jëmal dekk way yi ñu yag xam boori Sonatel bi Auchan bi wala sax mbedd mi juggé école yalla suren ndox mi di ball ci kaw tali bu bari kàmb. des fois da ngay am sax accès pour dugg ci bir immeuble yi ci bir kër yi pour dem sa bureau xam nga à pied même à pied munoo jall c'est vraiment dommage xawma nak ce que les autorités attendent pour régler problème bi parce que ça persiste. chaque année à ce moment-là moo xam borom woto wala kuy dox ak ay tànkam jaar ci ay tali cité kër góor gi ci jamonoy nawet di lu jafe lool ñi fiy yeewoo ak ñi fiy xëy di joxoñ baaraamu tuuma mairie Mermoz Sacré-Cœur ak ONAS banqaas yooyee war cee wut saafara. il y a l'ONAS devait faire ce rôle-là parce que je lui celui qui la la circulation des eaux. Donc aussi à la mairie aussi qui doit faire son, travail. Mais je crois aussi même au moment d'installer ces bâtiments-là, les gens devaient penser à mettre un bon truc qui permet de faire passer l'eau. Mais je crois qu'ils ne l'ont pas fait. Parce que même en, en ordre nous avons beaucoup de, de, l'eau qui sort des, égouts et qui envahit les routes. Quoi. Donc c'est un peu compliqué. il y a des boutiques qui sont immobilière, hein? amna ay boutique té mairie bi day ñëw di demander ay patente et tout donc warna mëna contribuer ci euh, tali bi ñu défarat ko waaw donc moom tammi euh, c'est de sa responsabilité vraiment on a aussi c'est pareil parce que assainissement yi mom ça ne va pas du tout ça ne va pas boy dugg boy dugg mom loolu moy ñëk nek ce ce sa stress boo jubee cité kër goor gi rek yaa nga xalaat ci koñ bi nga il faut nga jaar fa pour liggéey waaw koñ bi mom dafa toj mom te entrée bi boo jugee karak nga ngay dugg moy lol. ñëwé ba bureau aussi euh, vraiment euh, euh, les les les rues sont très délabrées état bi def ci ak mairie il a plu à Dakar deux fois la fi mais je vous dis que taw na ba paré mais tata bi mi ngi bi mi ngi sax ci ci alors du odeur de mais ci aiguille la de plutôt. parce que ndox mi soo ko soo ko jegee dafay am benn odeur quoi. jokkoon nañu ak ki yor lépp lu jëm ci wàllu réseau d'assainissement fii ci dakaar ngir mu indil ñu ay leeral ci yooyu la jafe-jafe. ONAS dafa renforcer ay camions uniquement pour lool camions yooyu ñu renforcer tey jii ñaar ña biir cité kër góor gi lan la ñuy def dañuy curer di nettoyer tu euh, di nettoyer tuyaux yi. ak ñi nga xamante ni ñooñu dañuy nettoyer rek man li ñuy wax curage ak entretien am na ñoo xam ne la nga xam ni dafa fat bay génn ci ci regard yi ñoom ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy dindi bu ñu àndee kenn ku nekk jéem la nga la nga war nga def la la war nga def ko rek coono du am ñun nag du ñu xaar nit def la mu war mais dañuy def ñun li ñu war li ñu war mooy fexe ba nit ñi nekk dans un cadre de vie idéal cité ouvrier euh, kër góor gi c'est une cité en chantier nit ñaa ngi tabax àggalaguñu bu du ñëwee di di teg seen ay jalu suuf ak seen jalu xeer du ñu xool fan ko war a teg na jege chantier bi rek wala ñu teg ko fa ñuy wax mbeddu buur buñ ko fa tegee léegi léeg si ëpp ci kaw kubéer yi lañ koy teg kubéer ki du ko àttan day ànd ak moom màbb wala mu xar su xaree day dugal suuf su bari suuf su bari soosu noonu dégg nga ndox euh, bu ci bu ci demee day doon ban day fat euh, boo bokk na ci lii waral bu bu nawet commencé tàmbali avril rek buñ ko séentoo nawet comme bii nii juillet avril dañuy commencé nettoyer regard yi yàqu ñu defaraat ku tegaat ci ay kubéer waaye li may faral di wax rek ndoxu kese du boucher lay boucher loxo doomu aadama moo ci dem ànd ko ak ndox ma bu dañ dañee day boucher waaye bu fekkoon ndox mi génne ci kër gi rek moo dem ci tuyau bi wax deug yalla loolu mënul boucher. gannaaw loolu doxantu nañ ba mairie Mermoz Sacré-Cœur gisee ki nga xamante ni moom di Lamine ñaan yor lepp lu jëm ci wàllu voir yi ngir mu addu ci li nga xamante ni doon na ay jafé jafé yi ñu nemmeeku foofule ci diwaanu cité cœur gorgui problème cité cœur gorgui problème bu ñu soxal la parce que chaque jour dañuy jot ay revendications yu jóge ci population bi. présentement situation cité cœur gorgui dafa am benn situation bu particulière mooy cité kër góor cap SICAP lotissement bi donc sikap il faut comprendre que sikap mo war defar assainissement bi défaire tali par door reverser poche donc présentement cité de góor gi toujours titre sikap d'ailleurs ñu ngi nekk di jaay ay terrain ba tay il faut nécessairement que que SICAP reversait nous terre des Bon, à ce que, par exemple, je vais, je vais prendre l'exemple de, de, de, du jardin qui est derrière la Sonatel. Bien site site Kër Gorgui def en partenariat avec Sonatel mairie bi dugalu ci loxoom ndax mairie bi amul fum tolni ben dogal biir site Kër parce que mu ngi nek toujours titre SICAP. bon il faut tout de même aussi savoir que mairie géré assainissement assainissement ONAS moko même si on nous interpelle tout le temps par rapport à ces problèmes d'évacuation, bon, nous, nous, à notre niveau, tout ce que nous pouvons faire, moi, def relais bi ak ONAS gars yi xam que c'est Kër Góor gi titre la bataille, commune bi Yoroko, c'est écrit Kër mais ngi continuer di jaay ay terrain donc nous, ñoo war a cité bi defar tali yi defar assainissement bi. ñi dëkkee fofu, am lu leen metti lool ba tax ñuy sàkku ci nguur gi mu taxaw ci ngir wut ci ay safara